merci Boubacar Diallo tey ñu ngi fii du côté de la Sicap Liberté cinq pour y rencontrer un jeune garçon du monde de la moto et un entrepreneur de surcroît du nom de Ndiouga Benjamin Ndiouga nuyu naa la. grand papa fay naa la. waaw Ndiouga tey boo ñu doon wax si Ndiouga fan la ñuy commencé. Ndiouga benn jeune sénégalais la juddoo Sénégal màggee Sénégal nekk un jeune passionné de la moto di pratiquer sport bi am même temps. lan moo dugal ñu ci moto. waaw parce que début bi moom passion bi ngay jiital parce que boo nekkee xale. juddu si monde moto mooy juddu gi say nijaay say frère say cousin di dawal moto. vite fait da ngay ñëw rek adapté wu. depuis loolu si lañ bëgg moto. souvent dama doon am ay cadeau vélo wala ay euh, euh, roller wala yooyu que man ci ci monde boobu rek laa bëggoon di focus quoi. début bi xawoon na xawoon na compliqué trop parce que boo nekkee xale dafa am lu ñu lay sant par rapport ak yow li ngay bëgg xam nga mais au fil du temps ñu dem di gis ni que. Euh, bëgg naa affaire bi et que maa ngi ciy góorgóorlu souvent ñuy gis yenn publication yi seen doom dafa mën dawal ci dafa mën dawal dafa mën lii après ñoom ñu aidé ma si jàppale ma si ba tey ma yegg si fi ma yegg si 2017 defe naa si la am sama sama première scooter si la débuté nag ak ay wheeling scooter affaire yooyu noonu dem ba. wheeling ça veut dire quoi exactement. turu anglais la quoi. wheeling mais mooy nekk comme ñun ñu koy wax fii cabré ay tooc wala yooyu noonu. moom moom moo nekk noonu quoi. dañuy gis ngay def ay figure yu doy waar yu exceptionnel. Mhm. d'accord avec ta moto. Mhm. Ah, dans des espaces différents euh, comment te bi ni muy ñëwee moom c'est c'est des fois figure yu bëri des fois da ngay dugg si net bi parce que am nañu ay partenaires yoo xam ne nekkuñu Sénégal ay copains yoo xam ne nekkuñu Sénégal que dañuy gis des fois ñoom ñu def benn figure après ñun ñu jéem ko répéter des fois nag dina am figure yoo xam ne yow yaa koy créer sa ak propre euh, expérience yow yaay dawal moto bi xam ne que moto bi dina adapté pour def lii yow nga essayé ko entraînement mu jàll après nga def ci vidéo wala photo. y' beaucoup de jeunes qui s'inspirent de toi. ñu lay xool di la topp xool li ngay def. alors ces jeunes là leur dis quoi. Mhm. ba li ma leen di njëkk a conseillé moom du li ñuy def ji sax mais ñu protéger wu d' abord balaa sax ñuy dem def ji dara parce que protection du casque bi ngay sol du équipement bi ngay sol kase déjà si sa si sa si sa bopp si sa xel da nga war wu déjà xam leen nga war a defe ji. Mhm. parce que boo solee casque sol yëre bu protection peut-être dina la mën a sauver mais du la mën a sauver à 100 pour cent protection du doy et que nit ki la koy wax waxu la ko pour boppam pour yow la et que risque yi mu ngi ci tali bi des fois nit ki yow kase booy daw si tali sax mën nga daaneel sa bopp parce que mënta ñàkk machine la. pour man loolu noonu li tax jeunes yi duñ ko duñ ci duñ ci focus dama jàpp ni que ñenn ñi si bëri dañu amul formation bi pour pourquoi pas tey gendarmerie wala police. créer ay ay ay formation yoo xam ne que dañuy dañuy dañuy invité jeunes yi à que ñoom ñu ñëw ñu formé waat leen ci côté pilotage bi ci côté ci côté éducation bi affaire yu bëri quoi parce que tey euh, police wala gendarme tey ñooñu kenn gënu leen éduquer ci kaw tali tey ñoom bu ñu lay poursuite sax di lay dàq yi dafa am nan lañ lay toppee déjà lu tàng lu mu tàng tàng dañuy sol seen équipement yëpp lu mu metti metti dañuy topp euh, réglement wu dawal alors que fii bëri nañuy ñoo xam ne waaw dañuy mel ni man dañuy jóg rek commencé daw gauche droite alors que xamuñu code de la route xamuñu règlement wu oto xamuñu règlement wu moto. pour man bu ñu amoon ay formation yoo xam ne que gendarmerie wala police daf kay organiser bu dee deux fois ci année bi wala trois fois ci année bi. invité jeunes yëpp dina permettre tey di nga mën a licencier sax moto yi nekk Sénégal yëpp dina permettre tamit nit ñi dinañ mën a am permis moto tey état lu mu gën a gersuwaat borom moto yi rek du doy bu ñëpp ñoo am moyen wu jënd casque bu bu bu bu bu original bu cent mille bu deux cent mille bu trois cent mille dina subventionné ay casque yoo xam ne que dina dina dina baax ba pare dina accessible pour ñi nga xam ne que mënuñu jënd casque bu cher ñu dem foofu noonu comme ça dañuy mën a am équipement complet quoi. est-ce que demande boobu doo ci boole les parce que man dama gis ne y a beaucoup de dawal moto mais xamuñ sax ni moto dafa war a am permis si ñenn ñi duñ si gëstu ñenn ñi peut xamuñu ko mais des fois yor moto sax yor sa permis oto dem policier jàppal nga génnee mu ne noonu défaut de catégorie ñu bëri duñ ko seexam parce que duñ ko bàyyi xel pour ñoom bu ñu xasee am permis auto rek dafay valable alors que permis auto dañ la may ba 125 centimètres cube permis moto à part réalité yoo xam ne que dafa am si monde de bi. quels ñu un peu plus tey côté bu ñu war a gën a améliorer mooy ñu fexe am fédération bu bu solide quoi ñu booloo ñun ñëpp ñu doon benn tête xam ne bu ñu soxlawee dara état dafay xam ne que ñii ñoo soxla dara mais bu ñu dispersé woo rek pour ñu dajale woo benn affaire dafay dafay compliqué. loolu bu ñu ko defee dina permettre à comme li ñu bëgg dinañ mën a am suñu espace bopp tey benn circuit boo xam ne. dinañ ko mën a am boo xam ne circuit homologué lay nekk dinañ ci mën a di compétir ay circuit fermé yoo xam ne dinañ ci mën a dem pour di def ay wheeling wala ay cours moto parce que ñu bëri bëgg nañ jàng moto mais xamuñu fan lañ koy defee. dans le monde de la compétition euh, qu'est-ce que mille vingt vingt et laa commencé compétir circuit ci laa commencé compétir circuit jot naa ci am ay trophée mën naa ne lépp ay souvenirs yu nice quoi parce que il suffit que ma préparer sama moto compétition ñëw. ma dem compétir rek man loolu daf may daf may daf may kii quoi waaw en tant que passionné quoi. comment tu trouves le man débuté wu ma rek am magasin wala débuté ci ay produits wala yooyu sama propre kër suñu kër laa doon jël samay moto di réparer sama bopp ah, foofu des fois samay copains dañuy ñëw indi moto sama biir kër ma réparer leen ko foofu ñu dem di évoluer di évoluer ba ma tey yàlla def ma am sama magasin boobu mais à chaque fois li may wax rek. jeunes yi nañ bañ a xàddi parce que dara xëyul neex dara xëyul sotti nit ki boo ci nekkee rek après lépp lépp gëm naa ne dala siy fekk si parce que wërsëg mi ngi fépp. alors si toog boobu sax dafa mel ni yow. Mhm. yaa ngi interpellé les jeunes qui prennent la mer. Mhm. mu nekk un phénomène d'actualité actuellement. Mhm. di masawu seen famille di leen jaale bu baax ñi ci ñi ci décédé tey li ma leen mën a wax mooy nañu bañ a yàkkamti rek parce que tey nga gis sa benn moroom xëy tabax immeuble. sa beneen morom tabax immeuble taxul yow nga ne doo tabax immeuble wala tey kutoo kut da nga bëgg tabax wala da nga bëgg a jënd oto wala da nga bëgg a teral say parents des fois ñi si bëri nag du ñoom sax ñooy jël initiative bi des fois parents yi ñooy xaw a pousser jeunes yi parce que yenn yi sax parce que tey da gis benn parent bu doomam nekk si kër gi di takkale juróom ñaar dërëm mais à chaque fois muy dugal si boppam ni ko dafa war a dem Europe dafa war a dem Europe a dem Europe ko ko alors que kooku wërsëgam peut-être mi ngi fii chaque jour nga dégg ay mort mais teewul nit ñiy dem dañuy dem ba léegi parce que peut-être ñoom loolu la ñu opté am na ñoo xam ne que tey yàlla teral na leen fii Sénégal mais ñoom seen xel Europe la nekk ak États-Unis kese. li may tëjee rek mooy muy Europe muy Amérique am na ay pauvres am na ay sans abri tey nañu gëm suñu bopp rek xam ni que réew mi am na dara te incha allahu rabi ku ci jàpp rek di am dara quoi incha allah merci grand